خلا وسار كنار الخل لي برما يرمى salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu ne leen siyaar leen ndokkeel bu baax tey ñu ci sëñ Ahmadul Maxtaar di ñaan yàlla moo fi nekkal sëñ Mouhamadul Moustapha Mbacké di ñaan yàlla mu yàgg rek fi lool te wéral di ci yitteem bu ci yoon wi ak liggéeyam bu ci yoon wi ak mbaaxam ñëpp ràññee ko ñëpp xam ko tey nag ñu ñëwoon fii doon ko leeral liggéeyu euh, Caravane mayomba bi nga xam ne moom liggéey Sëñ Tuubaa fale ci Gabon ci mayomba mu liggéey boo xam ne euh, sëriñ Fallou Bousso moom Sëriñ Aliou moo ko taxawaloon ngir bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa wutaloon ko benn ONC boo xam ne daf ko wutaloon ay kayit ba kayit yëpp mat ba récépissé bi génn ngir fu mboolem fu waaye man nekk ci àdduna bi rek mën a sukkandiku ca kër yooyu dugg biir Gabon dem Lambaréné dem Mayumba fi Sëñ Tuubaa demoon fépp mën koo visite ko mën koo mën koo siyaare mu amoon na ay procès yu mag yu mu fa naaloon muy jumaa ak kër Sëñ Tuubaa ak daara yoo xam ne bokk ko liggéey Sëñ Tuubaa ànd ko mbokk taalib yi nga xam ne ñoom la àndoon doon liggéey ba yàlla dugal suñu boro moom ko liggéey boobu nag moom lañ fa yéene ànd kook njaboot gi nga xam ne moom la àndaloon doon ko liggéey ñu fas yéen ko jëmale kanam incha allah rabbi gannaaw bañ ci amee ndigalu sëñ Mahamadul Muntaxa euh, mu ñaan ci joxo ci ndigal ñu ñëwoon nag ci sëriñ bi doon ko leeral liggéey ba ak tolluwaay bi di sàkku ci moom ñaan ak ay kàddu yoo xam ne kàddu yi soññee doon ndax barab la boo xam ne fa la Sëñ Tuubaa liggéeyee mbooleem liggéey ba mu liggéey bépp barab boobu nag lañu bëgg mandargaal jëmmal fa Serigne Touba loo xam ne fu waaye nekk ci àdduna bi da ko mën a teg sa bët kon sëriñ bi ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi jéggal bu baax di di wàcce suñu kàddu di sàkku ci rek kàddu yoo xam ne dañu gën mën a soññi mbooleem euh, taalibe yi ak mbooleem koo xam ne am pasif ci rek ma ñoo soññiwaat bu baax ak di sàkku sa ñaan liggéey bi mu nekk liggéey ba Sëriñ Tuubaa gërëm. sëriñ mu ne mi ngi leen nuyu sëñ Moustapha sëñ Cheikhouna Bousso ak ñi nga àndal. nee am na mbégte lool ci ñëw gi ngeen fi ñëw tey jii. nee na di yëgle seen projet bu am solo bii lool. nee na mi ngi ñaan yàlla sunu borom def ci defal leen kàttan ba ngeen àggale ko ni ngeen ko bëggee. waaw dugg ci bunt jàkka da cee ñàkk a kàddu rek ginnaaw ndax seen tànk yi ngeen dox ba yegg si fii waaye ginnaaw sëñ taxa waxoon na ci ba dugal ci kàddoom daanaka waxaale na yoonu murid yëpp. mooy mooy kilifa ak ñëpp. nee na ginnaaw sëñ Mountakha xas na ci yëkkati kàddu ba wax ci rek ñëpp mel na ne li mu wax rek lañ wax. nee na projet bi nag bu am solo la lool. lépp ci liggéey liggéeyal ndax lépp ci liggéey sañ Touba rek la. nee na day tax projet bi day tax nit ñi xam sañ Touba xam ay jëfam. xam li mu fi nekk woon. xam li mu fi nekk woon. xam ak njabootam. ak njabootam tamit. nañu nekkee ci réew moom nañu nekkee foofu ci réew moom di Gabon. seen i di xam seen jëf ak seen pastéef la ñu nekke noonu ci réew ma ci Gabon dafa murid yi nekkee projet bi day jëmmal seen jëf foofu ci liggéey ci dëkk ba nee na mi ngi ñaan yoonu murid yëpp ànd ci te jàpp ci liggéey bi ni mu ko waxee rek ginnaaw sëñ Muntaxa ànd na ci te joxe na ci digal kon nag yoonu murid yëpp ànd nañ ci kon nee na kon yàlla na ko yàlla àggale mel ni ngeen ko bëggee ci darajee sëriñ bi jërë ngeen jëf jërëjëf wali raadahum duran wali karamal janba aqaasani al anam min kaydi man xala wasaaraka naaril xilli li baru ma